Dakar bile nag doon na ci njiitum réew mi mu yeesalaat kóoluteem ci ki nga xam ne yoroon na ay post yu am solo bi mu jotee réew mi ci 2012 ba léegi ministre délégué la woon ci ministre bi yor wàllu koom ak gafak réew mi mujj gi ñu tabb ko jëwriñu biir réew mi ci atub 2013 ginnaaw gi moom Abdoulaye Daouda Diallo nekkoon na jëwriñ bu ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ak xaj yoon yi ci atub 2017 laata moo nekk jëwriñ bi ñuy dénk gaf ak réew mi ci atub 2019 sa Seck mi nga xam ne nag dëggal nag candidature ci jongante njiite réew yi dafa dal di teg nag poste njiitub conseil économique social et environnemental loolee nag moo tax kii di Abdoulaye Daouda jàlloo dal di koy wuutu ci boppu juróomeelu institution de la république bi beneen njeexital ci teggib nomba tànk bu Idrissa Seck boobee Yankoba Diatara ak Ali Saleh Diop génn nañu ci gouvernement bi du baax mi nga xam ne moom mooy njiitub gouvernement bi jël na tamit photo yu tàggatu yaram ak wàllu sàmm gi